والقلم وما يسطرون dafa bëgg toog fee ñu jox kàddu gi kon Cheikh Awa Balla waaw bismillah aada waaw ñëwal taxaw fii ñu seen la <laughs> moom mooy joxe kàddu yi alaaji sëriñ eh, waaye am kàddu ci jotaay bi itam nag ndax li ñu def nii ab toolam la jaajëfal bu baax kilifa yi nga xam ne seen jiiri tudd na leen jéggalu ñi nga xam ne jotuñoo tudd seeni tur ndax olof mooy wax ne ku lim rek danga nga desal waaye bu ñu sañoon ñi fi teew ñëpp Euh, buñ sukkandikoo ci yéene alaaji sëriñ ak fonk gum leen fonk kenn ku nekk danañ ko tudd jaar ci turam jox ko wàcc waayam waaye daanu dajut suuf ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi ñu déglu imaam Cheikh Awa Balla bisimilah bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci weeru màgg wi di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa taala mu may nu nu fekkewaat ko at yu bare bare bare bari te yàlla defal nu wér ak wérle te nongul nu sunuy koor ak sunuy naafila ak mbooleem jëf yu yiw yi ngeen def yal na ko yàlla nangu xam naa dana jafe lool ma taxaw fii wax ndax ñi ma jiitu ñi nga xam ne nii ay werekaan lañu te wax fi wax yu am solo lool waaye damay nuyu rekk ñi nga xam ni ñoo nekk ci jataay bi ci turu alxaaji Serigne sekk mi jiite C3S ci liggéey bu rëy bii ñu def te yéen ñépp ngeen laxasaayu dikk di ko ci jàppale moo tax mu ni nañu ko dimbali ñépp santale ko ko santale ko mbooloo mi fi teew santale ko bokk yi santale ko jàngalekat yi fóore yeeg kàng yi ñiy liggéeyal alquran ñi gën ci nit ñi yenoon too ko wax waxuma ko ñi nga xam ni alxuraan mooy seen guddi alxuraan mooy seen bëccëg ñu tuddee ko tey ku rëy a rëy ku rëy am na lu ñu ma daan tooñe waaye mën na ma wax ni tey feet kisi génn ma ci dafa bari ci samay waxtaan ñetti tur dañuy faral di bari ba ñu bari léeg-léeg ñu bëgg ma cee jéppi sëriñ daam abdourahman sëriñ maam na Ibra Fati sëriñ Mbàkke Buso fa ahlan tudd nañu fi ñëpp bi ngeen fi ñëweeg léegi kon sababu tudd gaa mooy dañ doon liggéey ci lu yàlla am yàlla indi ko ñu di ca nekk te loola siiw kuy liggéey ci lu siiw faaw nga siiw kon moo tax ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi tànn loolu tànn nañu lu tànn tànn seen taalibe seen dono Sëriñ Mor Jóob mi nga xam ne dundam bëccëgam guddeem ci alquran la ko def ba wuy ji boroomam radiyallahu taala anhum sëriñ li mi ngi sant ñooñu ñépp nag di sant mboolem famille yooyu fi teew ndax yëg gu ñu yëg ni alxuraan ñoom ci lañ leen nàmpal kon fu ñu ko tuddee danañu fa teew loolu moo indi jitaay bi nee na jërë ngeen jëf ci loolu di sant mboolem donga yi nag bu ñu tuddee daara dafa am ñu ko composé sant dongo yi bu baax waaye sant waajuri donga yi ak jàngalekat yi ñii ñooy daara ka ca topp mooy ka fay romb naan koo kookee ci daara la bokk te loolu waa daara soxla nañ ko lool léeg-léeg nu am parandoo boo xam ni day jaar ca mbedd ma romb daara ji muy riir mu yëkkati dara yóbbu fa yi ñu ngi koy sant waaye léeg-léeg nu am ku farut ak noonu bu rombee ku amub góom mu womet ndànk yóbbu police ni xoolal ni ñu def doomi jàmbur kooku farut ak noon waaye ñi far ak noonu noo ngi leen di sant di leen gërëm ñi farut ak noonu it noo ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ubbeeku ñu bokk ci ñiy wattu téere bi téere boobu nag alaaji sëriñ jël la mu man jël la mu xam indi def ko ci alquran ngir du doon rekk lu mu roy dafa ko nàmp sëriñ bi jiitu woon wax na ko léegi ki nga xam ni moo sañ ci daara jee mu defar ba mu mel ni panaal yal na ko yàlla fay te yal na yàlla barkeel ko ñu bëggoon alxuraan lool di ko jàngale ba mu dugg ci loxol Cheikh Mahmoudan nga xam ne man moom laa fekke muy daara ju amoon solo mu di jàngale sunu sëriñ daara sëriñ Suhayb bu fonkoon daara jooju ba daan jël ay nit di leen fa affecté ak ni mu bëggee alxuraan ak ni mu bëggee lii ngeen di def tey muy mbind moom bu fekkee woon lii dana kontaan lool bu ma séenee li ñuy jëkki di affiché muy ak nuun nuuna rang lañ ko daan wax dafa bokk ci jafee bind léeg-léeg da daan tooñ xale yi moom dafa gëm bind daf koo rafetloo da bu gisee mbind mu rafet day lox boo xoolee nuunar a guñu xëcc muy tooñ borom naa ko xanaa nuunar a gi bi nga ko xëccee maare nga xam nga ku xëcc araf bu rafet da ngay maare mu ni loolu la daan tooñe dongaam yi ñépp xam ko ci mbind mbind mu rafet ba ñii di ko doon tagg sax dañ cey boole mbind mu rafet léegi nga sëñ Moulay Bousso bi mu koy tagg bi mu xoolee am mbindam mu mu ko doon bindloo ci benn téere bu mu taalifoon bi mu ko bindee ba indil ko ko moom ay Sohaybu mu ni ko farixtu bi nassin fiihi sarraxtu muqlati bi xatti imaamin faaqa xattam na muqlati bi xattin wa shaklin nam namat ibra burdihi banaanu imaamin muntamin li ahimmati shuaybin nada sayqi taqiyi lasi qada yaquudu fi aman lil huda bil asimmati kooku bu fekkee woon lii dana bég moom moo ñu doon ñu da ko kañ ci mbir mu rafet di ko kañ ci xalima gu jekk tey bu lii amee ami fii jige ko lool loola daal ñu ngi ciy sant sëriñ daal sant na ñëpp sant na jàngalekat yi bàyyi seeni daara bàyyi seeni yitte lu mat weer ay weer ñu dugg ci àll bi daara judul ji ji nañu dem fa gaaral leen liggéey bi wax dëgg yàlla loolu kenn amul seen pay yàlla mi mën a fay rek moo leen pay boole leen ak rakkam ji nga xam ne moom itam daf bokkul ci yëf yi rek waaye da ko doon muy Cheikh Fadil Fadilu Seck di boroom xam-xam moom it mokkal téere bi lool barki démb rek maa ngi dégg ci ni muy jànge waxafam xam nga koo xam ne booy jàng sa waxaf booy doxantu nga koy jàng ci yoon wi kooku xam nga ne mokkal nga Qur'an kon ñooñu askay eh, yëf yi néewuñu ci rek ñëwuñu rek di supporter waaye dañoo bokk bokk ci ñi mokkal alquran moo tax sëriñ jël lépp dénk ko ko ba mu ko ko dénkee mu wane ci fulla wane ci fayda wane ci itam ak gëm ak yittewoo sant nañ ko bu baax a baax sëriñ koy sant ak i bokkam di sant ñi mu tànn ànd ak ñoom nga xam ne dara du seen liggéey lu dul alxuraan alxuraan seen liggéey ci guddi mooy seen liggéey ci bëccëg te njiitul sëriñ xaadim Ndiaye ak sëriñ euh, Moustapha Diop Ndar yal na yàlla fay ñëpp te sant ñëpp gërëm ñëpp waaye nag du ñu fàtte. sëriñ nee na du fàtte mukk nag ay soxnaam ay soxnaam dañoo taxaw ci daara ji bu baax léeg-léeg ñu ñuqi ci seen poos togg lu am solo mbaa defar lu am solo ginnaaw yóbbu ko ca daara ja loolu nag lu am solo la loolu kenn du ko fàtte kon ñu ngi gërëm soxna yooyu ak ña leen di jàppale ca wàññi lépp dox na sëriñ bi yaakaar naa ne wax na ko bi moom sëriñ Fallou Seck bu waxee ba daanee te tudd fi waañ dana ma jaaxal ndax lañ fay def daf koo soxla kon noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp li ñu ma waxoon ni naa ko fi wax daane ci mënuma koo wax lépp ndax xam nga sama xel daan neexul waaye sant nañu élèves yi parents di élèves yi attekat yi nga xam ni dañoo baax lool ñu attekat yi national lañu ñii nga xam ne ñooy taxaw fu bu yàq nekk ñu génneel la ko loolu lu am solo la gis nga am na ko fi wax léegi ci njàngale mi lu am solo mooy koo xam ne nii boo dee bind di yàq def ciy bég ngir lan boo yàqee mun la bàyyi rek mu bind ni mu mane bu bindeem ni mu mane ci ngay xamee dëgg-dëgg fu yàq toll ak fu mu mën a toll doo ko gàgganti ko nag kon loolu méthode yu am solo la yal na yàlla dimbali ñëpp te sàmm ñëpp ñi ànd ak sëriñ ci C3S mu di ay liggéey kët jàppale ko ñoom ñëpp dañoo wàññi ko doon doomi daara kenn koo ci dem këram ñi ci ëpp samp nañu ay daara ngir roy ko ci kon nag ñooñu ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal yàlla sunu ñaari mbàkke yi al mbàkke yaani ah al mbàkke yaani silla waxuma yàlla suroñ yal na yàlla fay leen ci taqdim bu rafet bi jasakumullahu anil islami wa anil muslimina wa an sahri ramadanil karim wa anil quran wa ahlil quran xayral jasai wa jasa al xeyr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf ربك بمجنون